asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi seetaan seen info 8 TV tey ñu ngi fii ci taaxum fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ne nii e, ndaw la e, mu nekk koo xamante ne nii dafa yëngatu ci diina bokk ci hadratul e, xaadiriya waaye bokk ci waa kër mam bu ñu fas yéene tey pour seq moom waxtaan waaye fas yéene seq moom it xam yan projet la dëgmal ci kanamam ndaxte ku ku xam ku ne xam ne képp tàggkatu yonent yi yëpp yëpp guddi yuñ toll nii gis nañ leen ñuy def ay ay ay ay ay album ñi di def ay kaset ñi nekk ci ay wàccaay di def ay clip euh, ñu fa yéene seq ak moom waxtaan tuuti sëñ bi tur bi naka la. Ibrahima Seck. Ibrahima naka. Seck Ibrahima ñu ngi lay ziare bu baax euh, di rafet lu dalal bi ñu dal ci sa biir kër gi euh, di wax ne ñu ngi kontaan ci wax dëgg yàlla. Euh, macha allah sa yëngatu bu baax a baax a baax a baax euh, Ibrahima mën nañu xam kan mooy Ibrahima Seck. waaw auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin seydina muhammad ibn abdallah xaatimu nabiin wa imaamul mursalin ah ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gërëm si ñuy ñaari waajur yàlla na leen yàlla gërëm di ñaanal suñu sëriñ suñu wasila si Ibrahima Kunta yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ko ak wër nuyu xalif général bu Njaasaan Bekaay Bekaay mm-hmm. ibnu seex Bekaay ibnu seex bu Muhammad mm-hmm. ibnu seex al Bunaama mi nga xamante ni mooy tarifatul am mm-hmm. li tarifatul qaadiriya nuyu sëñ Ba Mansour nuyu mboolem xalif général yi nekk ci àddina bi rawatina fii ci senegal waaw nga laaj laaj bu am solo Ibrahim day xam ko defe naa ni yaakaar naa ni yomb na lool waaw ndax jëmm la joo xam ni jëmm ju xeebu la jëmm ju doyadi la tamit xëy na yàlla xiir ma ci tagg yonent bi moo tax ma di ko def waaw soqi tamit ci diggante ñaari góor yi ma jur muy sama yaay Kumba Fay ak sama baay Beydi Seck macha allah ci loolu lañuy ñuy profité sax jaal euh, Cheikh Bekay Seck bu Malicounda euh, Ngëriñ mu génn àdduna tey ci bëccëg euh, ñu ngi koy jaal waa Malicounda yëpp ah, di leen ko jaal yéen tamit ah Cheikh Bekay Seck mi bàyyi ko di jur bu góor ci ku ñuy ooyee Duudu Seck ñu ngi leen koy jaal bu baax sëñ Ibu tey gis nañ tàggkatu yonent yi yu ci baree baree bari bari tey ñii ñu ngi mal ci ay clip ñii ñu ngi dégmal ci ay ay son euh, ndax mën nañu xam ndax Ibrahima moom am na ay son yoo xam ne jot na ko dafa gum di ko bégalee euh, jaam yàlla yi nga xam ne ñoo ngi koy béggee waaw alhamdulilah kontaan tamit ci laaj bu am solo bi ma laaj nii mhm. waaw Ibrahima day waaw mën naa ne 2020 bi ñu génn mhm. pour dire naa ci ñetti son Euh, premier son bi ma njëkk a génnee ma tuddee ko Cheikh Ibrahima Kounta mooy ndigal li ma njëkk a mhm. bi ñu ci tegee ñaari weer defe naa ni ci laa génnee waat yeneen ñaari son muy wàll abar bi ak euh, bi nga xamante ni maa ngi ci woy euh, maanaam yi xew-xew jamono bi mhm. defe naa ni génnee naa ñetti son maa ngi waajaat tamit beneen album boo xamante ni incha allahu rabbi xam naa feeg ay fan yu néew incha allahu rabbi ñëpp dinañ ci teg seen yàlla yóbbu ak jàmm amin amin ndax mun son yi nga xam ne jot nga ko génne. waaw loolu amul benn problème yéen ay tànn bu leen neex wala abar beeg wala Ibrahima bi. wala bu leen neex buñ boo ñu ci jox rek. ah ah kon nañ tagg si ñu wasila rek. Ah, macha allah incha allah. Hmm. Ibrahima nu jox ndigal. ne nu sos leen kuréel ci lislaam kuréel gu seen njiddi doon mara saalu seexu jëyle ibrahima nu jox ndigal nañu sos leen kuréel ci lislaam waaw gu seen njiddi doon doon mara saalu seexu jëyle man ma ne ay ndaw yu booloo te bopp xalaat di moytu seytaan ñoo ko mbooloo mi yéen ñi ñu mag bu waaw waaw ay ndaw yu booloo te boo ko xalaat di moytu sey ñu ngan ko mbooloo mi yéen ñi ñu mag bu leen ñu ma ni Ibrahima ku ñu taman dama lay xool ba daa di yéemu woyof gi ak mbaax gi manu teem ga moo doon ñu jëyle Ibrahima nu jox ndigal ne nu soos leen kuréel ci lislaam waaw waaw من قد نال من جده زغدا كيوسف في حسن كمثل أبو بكر لدن غمجي يرمان نجوخ ندقل لنو سوس لن كريل gi mu def ci daayira be waral ma wayle jël na Moussa Faye de mu jiite ñu ci waaw waaw ah Ibrahima yaay ki waral lii sant leen ki lii jëfama Ibrahima yaay ki waral lii sant leen ki lii jëfama ah Ibrahima yaay ki yeyoon lii jërëjëf jërëjëf jërëjëf sang be daay yaay ko waral ki waral li sant leen ki li jëfama macha allah macha allah Ibrahima yal na yàlla wéral baat bi yal na yàlla yokku la yal na yàlla dooleel la barke alxuraan bi jaay seydul bi jot mi nga xam ne moom ngay tagg euh, di wax ne rek macha allah euh, wax dëgg yàlla lii moom xawma kañ nga ko kañ nga ko kii waaye wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne nii xam naa ne euh, sénégalais yi biñ ci jotee bëgg nañ ci lool euh, fans yi ñi nga xam ne tamit ñoo lay ñoo lay bëggee ba nga xamante ne ci lépp fépp foo taxaw rek euh, fas yéene fa tagg yonent bi ñu daje fa ak yow xam naa ne bëgg nañ ci mais mun nañu xam Ibrahima kañ la tàmbalee lii maanaam tagg yonent bi kañ la la ñëwoon. waaw tagg yonent bi nag maa ngi ko tàmbalee 2016 waaw li taxoon tamit ñuy tagg yonent bi xëy na sabab la. yàlla bu namee dara ci doomu aadama kenn mënu ci dara Moussa Faye mi mën na ma seede dañu nekkoon ay ndaw yoo xamante ni dañu bëggoon yonent bi bëgg tarixatul xaadiriya macha allah daan nañ toog sax di fawantoo ay tabala di jël lu mel ni ay gën mm. di ko foor ay tabala di ko tëgg mais daa amoon ay ñoo xamante ni dañoo nekkoon si ñu ginnaaw di ñu jàppale ku mel ni sam mm. bi ñu demee ay jamono ñu xalaat maag Moussa mi ñu ne war nañoo mën a am nag ay tabala mm-hmm. comme yeneen daayira yi nuñ ko amee mm-hmm. noonu lañ ko defee di ci nab na bi di ci nab na bi ba yàlla dogal euh, Ibrahima fay jooj yaakaar naa ni war nga koo xam ñu waxtaan ci ak moom moom moo jëloon lu mat ñetti tabala jox ñu ko mm-hmm. ba nga xamante ni tey tey tey ji lu fi nekk ay tabala kenn xamul nu mu toll Euh, defe naan tamit. Euh, loolu ci diiru deux mille seize la. waaw ci diiru diiru de mille seize ci ñetti tabala yooyu lañ ngeen dem ba am ci yu bëri yoo. xam ne bu ngeen amee ay programme sax yii mën nañu dem fii yii mën nañu dem fii. walaay ndeysaan. macha allah yemuñu sax ci tabala yu bëri yi waaye dem nañu tey tey tey. ba am rajo boo xamante ni siñu ñu daayra bi kese moo ko moom fépp fu ñu taxaw di tagg yonent bi moom lañ fay taggee yonent bi te loolu dara waralu ko lu dul ngëm-ngëm ak pas-pas wallaay wallaay wallaay waaw nii daal moo ma dugal ci tagg yonent bi macha allah eh, Ibrahima tey eh, eh, gis nañu comme ni nga ko waxee pas-pas bi moo la yeggale fii nga yegg nii waaye am na loo dëgmal sa kanam am na loo dëgmal sa kanam programmation clip bi fu mu toll wax nga jot nañ ci jot nga ci cof tuuti fu programmation clip bi toll. peut xanaa avant album bëgg nga def clip ba pare. incha allah fu clip bi toll. waaw clip bi tamit ñoo ngi ci. Mm-hmm. album bi tamit ñu ngi ciy liggéey. Mm-hmm. lépp ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax xam naa clip bi moom incha allahu rabi ñaan nañ yàlla fekk ay fan yu néew ñëpp teg ci seen bët. album bi tamit ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax daa am lu ñuy xaar moo tee mu génn. Mm-hmm. waaye ñaan nañ yàlla tamit fekk ay fan yu néew ñu ñu génne génnee ko incha allahu rabi. ginnaaw bi loolu weesoo est-ce que ñu ngi fi sa mbokk yi fi nekk maanaam sa mbokk yi nga xam ne nii yéen a bokk nabi di ay taggkatu yonent bi est-ce que euh, di ngay des fois ñu am ay ay ay yëngatu ci wàllu diine woo ci wala yow yëgle yëg yëg euh, xewal xewle dara woo ci est-ce que euh, dinay faral di am. waaw loolu lu muy am tamit bëri na lool sax. Mm-hmm. bëri na mm-hmm. ndax ci ñi fi gën a nekk di tagg yonent bi. ñoom booy xool man maa leen féete mag mhm. euh, des fois bu ñu dajee ci ay programme yu demee noonu Moussa mi mën na ma seede dañ may jox ma way mhm. mm, jàng yi may organiser fii tamit chaque année mhm. euh, ñoom dañ ciy teew def ci seen participation bu baax a baax a baax a baax kon sama diggante man ak ñoom mën naa ni relation bu rafet la te ñoom ku ci nekk ci ñoom bëtu frère rek la may xool waaw macha allah euh, ba ñi nekk mbuur a ah, ci nekk mbuur est-ce que euh, tax na ko mu demee noonu. waaw euh, ba ñi nekk mbuur ñi ñi nekk mbuur ba tey ku mel ni Ibrahima fay moom ma la waxal muy jooj mm-hmm. nga xamante ni ay conseils yu baax rek la ñuy jox. ak doomam. sama xarit la Moustapha. Mm-hmm. maa ngi koy ziar bu baax au ku ci mel ni naago tamit sama xarit la ñoom ñëpp. waaw boo demee Malicounda am na ku fay wax ma du juuf boo mm-hmm. xoolee moom ma njëkk a dugal ci oto. yóbbu ma ma tagg Seydina Muhammad loolu mu doon loo xamante ni dama ci kontaan bu baax a baax mm-hmm. invité nañ ma ci benn télé ma wax ko te fu ma toll tamit dama koy wax parce que nit ku baax pour man war tasul jëf daal mm-hmm. nit ko bu la defalee dara da nga koy wax ba ñëpp xam ko mm-hmm. Mamadou maa ngi koy ziar bu baax sama mag la sama xarit la maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal bu baax a baax macha allah bu loolu weesoo est-ce que euh, est-ce que mun nañu xam ndax Ibrahima mu ngi génn di dem ci dëkk yu wuute biir Sénégal foo xamante ne léeg-léeg day am ay programme ñu woo la euh, dëkk wala dëkk ci biir département bi même bu Sénégal sax ci biir département bi. waaw loolu moom amagul xëy na man dinaa dem ci ay comme ay programme yu mag yoo xamante ni ku ci mel ni Alaaji Seex bu Jóob moom day am ay programme ma dem ci. Hmm. ak ay programme yu demee noonu mais génnaguñu nag. dem ci yeneen département yeeg yu yu demee noonu. Mhm. mais yéene baa ngi fi. yéene baa ngi fi pour yàlla yi. incha allahu yéene baa ngi fi te xam nañ tamit incha allah bu fekkee fi ñu jàpp yàlla rek a tax ñuy def ak yonent bi xam naa dinañ àgg sax fu fu fu fu. fu raw njort yi. waaw macha allah yal na yàlla mottali ko. amiin amiin barke alxuraan. amiin bi jaay Seydi lu jot yaram. amiin euh, tey euh, ñu gis la nga feggoog sa euh, ñii. nga xamante ne nii ñooñ nga bokkal muy kuréel bi nga xamante ne kuréelu euh, tagg yonent bi la maanaam pour sampoon kuréel googu est-ce que nekkoon na loo xamante ne lu jafe la woon wala yàlla da ko yombaloon waaw xam nga nit boo nekkee ci benn kër mhm. yàlla dogal ñëpp bokk pas-pas pour man pour nga former fa dara mu yomb day yomb lool. Mm-hmm. te dañu toog jaasaan euh, ci benn gàmmu. Mm-hmm. mu am kilifa bu mag boo xam ne daf ñu dénkoon ay kàddu yoo xamante ni kàddu yooyu duñ ko mos a fàtte. Mm-hmm. mu ne ñu seen kër googu day maa ngi leen di wax ni loo leen mos somb. yàlla dina ci def barke te barke boobu gis nañ ko bu baax a baax kër gi defe naa ni tabala nekku fi lu bees parce que si ñu maam bi nga xamante ni moo jur suñu baay moom moo fi njëkk am ay tabala tabala yooyu boo demee tey. Euh, mu ngi mujjee Malicounda ngoogom nga xamante ni euh, si sëriñam see Moustapha Thiandoum fala tabala yooyu mujjee kon deret day rogalaan xëy na nag loolu moo rogalaan ba ñëw ci ñun set yi hmm. ñuy tagg yonent bi macha allah macha allah kon Ibrahima xam naa dañ la bàyyi rek nga jëm ñu dégtalaat beneen beneen euh, ci yeneen morceau yi nga xam ne yaa ngi koy tagg yonent bi balaa ngay tàggoo ak sénégalais yi waaw incha allah ah xanaa ñu màddaal leen rek ah macha allah bismillah way alime way alime ñoo bari ngor dunu daw danuy jeex sang ba ca madina seydina muhammad moo gën ñi moo gën ñawoone yonti yàlla ahmadu déggal saadu la bi neena maamam seyduna muhammad innal muraada ba yàlla namee amal min ijaadul xalq bind yi ijaad ahmad daa ci la sakk seydina muhammad lil fatqi raaqi seen seesat bu neena akramu man tusilahu xasraawu wa xayr man tuxilahu xabraawu alal maratibi suhudi zaati tafadlan li seydi saadaati bihi ijaadu alamil ulwi seen seesat bu neena ma ijaadu alamil suhli بجاهه خزائن الأرزاق تفتح للموجود في الأفاق بالنور سينا سيسات بنينا بالنوره ci sama leeru maam Seydina Muhammad addaala yàlla ñiite maa fil kaw ni nekk ci adduniya wa oxtiya mu jox ibaadu jaamami siral aw ni sekk rëngëm sehinaa seexinaa seex saadul abi nee na jaalahu wasilatal annaami waxasoo bi axzamil isaam da bàyyil maddaatu at xaw mu isaafi wax kum bi kulli xasatil alayhi nee na bàyyil la nitu yonti yàlla insa ya daan wax naan insa doomu yàlla la waaye wax kum waxal lépp la wax seydina muhammad ci jikkoy tedd rek yeyoon na ko da maddaatu at xaw mu isaafi واحكم بكل حزة الأليه دام سؤوده لذات ذاتي فخب في ذات مال الآيات ندهر الدها رير كتابه وجديد لا يقتصى تعرفه ولا يهد هو المراد من جميع الحلق هو المكرم به زي سبق سهنا سيحصاد بنينا ويدقل ما الله جمالك بكرك درمان aram loo maam ku mbàccaam mbañ pendaak paate pendaak bëgguma penda xar yàlla nga bopp coor kookoy bàyyi sëriñ Babacar si ndandaar bi bàyyi sëriñ Mansoor si bal xaw mi bàyyu alhaaji Abdul Aziz Dabakh Malick alhaaji Malick nee na lépp luy leer ak na muy leer fa muy leer lépp a ngay leer ci leer Seyduna Muhammad ñu ne ko Maodo Malick bindal mu ne wa innahu is araada allahu nasatana abbaana min nuurihi nuuran nabil alami إن الحوالم آلها وسافلها هشية طلعا من أفضل النسم وعدم الله هدنا نبوته وكان آدم بين النفس والنسم دقل مقور قد توبا باي فلوق مصطفى بسيروك عبد الله تكسرين سالو أحمد البنبنين نور عظيم قد يرى به خصوي قيصرا نين من كان في أم الخرام كتل خير الخرم وي عالمي وي عالمي وي عالمي علي بيت المختار نيو بارينغور دونو داو دنوي جيخ نبي ما شاء الله ما شاء الله ah sëriñ bi day ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk la Euh, di la wax nag lan ngay dënk sénégalais yi nga xamante ne mooy sa kàddu yu mujj. waaw kàddu yu mujj yi xanaa di. lay seetante nekk biir Sénégal ak bitim réew yëpp. Mhm. di leen dénk rek ñu delloowaat xel yi bu baax ci yàlla. Mhm. ñu delloowaat xel yi bu baax ci yàlla. Mhm. delloowaat yi bu baax ci yàlla. te xam ni ku dul yàlla doo dara. te ñu gën a góorgóorluwaat ci Seydina Muhammad. macha allah sallallahu alayhi ñu gën a góorgóorluwaat ci Seydina Muhammad. xëy na lii nekk ci réew mi nga xamante ni mooy mbas mi. Mhm. ñëpp bu ñu àndoon man nekk benn jaamu yàlla nu mu waree. Mhm. xëy na yàlla mën na cee def euh, ndox mu sedd bu baax a baax a baax a mhm. waaw di nuyu tamit euh, ñoo xamante ni ñu ngi may bége. di nuyu samay soppe yëpp macha allah di nuyu samay soppe ñëpp. waaw di nuyu tamit euh, ñi nga xamante ni ñoo ñoo yor tabala yi nga xamante ni ay jàmbaar lañ torop waaw. ndaxte émission bi bi ma lañ ko waxee presque démb laa leen ko wax waaye gis nga ñoom ñëpp ñu bàyyi seen itte xam naa nag ñëpp ñëwuñu mais woote ñëpp wuy ci la yàlla rek euh, moo ko mën mhm. waaye maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ci yàlla tamit euh, lu ñu bëgg ci seen métier yi ak seen njàng yi parce que ñaar ñi ay élèves lañu mhm. maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax lu ñu bëgg seen njàng yàlla na leen ko yàlla àggalil ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf waa mbokk yi mu nekkoon Ibrahim euh, fii ci Malicounda ci tund bi ñuy ooyee euh, taaxum mu nekk ñu koy gën koo xam ci fi ñuy ooyee Kër Sombel ñu ñëwoon mu nekk tàggkatu yonent bu mag boo xamante ni wax dëgg yàlla bi mu ñëwee wane na ne carrément yàlla am na lu ko lu mu ko dënk ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla dooleel ko ñu leen